bon Mohamed yow tey loo bëgg leeral yow moom doo fi gan waaw waaw waaw en fait moom sax moom laay njëkk sax laaj tuuti quoi laay njëkk wax benn affaire waxtu bi dañuy jàpp sax daanu na ko waa si côté boobu ndax affaire bu tey du combat quoi waaw loolu moom mënuñu ko jël fii te culture ñoom xool nu mu rafetal ñu def ko quoi man nag li ma gën a tax a jóg intérêt mooy réew mi fi mu toll di di wër di nuy d'abord suñu mouvement bu tudd mouvement ca café bi président bi tuuti ko yaa sant Ndiaye moom la àndal sax nii mais xëy na mënuñu nekk nii. mu ci coopérative mouvement café gi moo nekk noonu waaw. aywa waaw. tu ko def nag pour ñu xool ñu nan lay avancer ndax euh, bu ñu waxantee dëgg te yàlla moo tax xam nga Sénégalais dana soxla ñi nga xam ne dañu ay messages yoo xam ne dañu war a leeral nit ñi te fii ñu fi nekk di raay fi at duñu wax dafa bare. dinañ aussi xool ak détenu aussi waa 100 mètres waa prison surtout. ñoom surtout surtout may remercier tamit grand fi jot a jaar quoi di wax si affaire xool prison bi li mu wax dëgg la kaso nag boo ko dundul doo ko xam. Eh, yow dundoo ko yow ñaata fan fan ak ñaar bàyyi ma expliquer parce que da ngeen fii sa xool ki ñam nañ ko. ñaata fan nga fa def. man 15 jours laa fam te mujjee mu tëdd foofu. dañ la jàppoon ay dëkk ay Espagne jaar naa ay parce que xam nañ quoi mais fii moo gën a yées tey bu demee tey moom ma kii moom bu xamoon luy kaso dëgg dëgg dëgg. moom dina xam sotti li muy def. et puis may wax tamit Sénégal dañu fi tere kuy tox yàmbaare Mohamed Fall bu ñu la jàppee ngay tox yàmbaare. dëkk bi boo génnee toxatu yàmbaare dëkk bi xam ñaata des fi des yi. Hmm. ak dix personnes ngay gis si dëkk bi. dix wax moo baaxul rek. kon de man si laa bokk parce que man du sëpp xoolal li fi yóbbu xoolal mais saafara indies dafa sànni dafa fees dell. Hmm. xam nga kasoo. waaw moom ma dangay bàyyi tox bi tamit. moo gën nga koy jéem a layal baa ñu avancé baa ñu si ay bi fi génnee toxatu yàmbaay non kasoo métti na ko te may ñaan nag tamit Sénégalais yi toujours nanu dawal yërmande si prisonniers yi ak garde yi temps bi changé na jikko tamit dafa changé il faut ñu waxante dëgg te yàlla moo tax ko fu ñu ba Paris Paris jël askan bi di rey jël policier téye nit di ko taal. fan la. mais am na temps yi si banlieue bi. am na tamit benn booy tamit. bu ñu rey taaluñu ko nag de. yow tamit may ma rek mu expliqué la quoi am na ku ñu rey fii xool mbir naa ko rue foofu sama saayir la. Hmm. benn match am la maa ngi koy jaale tamit mais violence dafa bare. violence dafa bare. maa ngi dégg sànq grand bi toog sax mënu tudd Ibrahima Sall Ibrahima Sall maa ngi koy nuyu bu baax a baax Ibrahima Sall Sall maa ngi koy nuyu maa ngi koy nuyu dafa am benn affaire boo xam ne dafa si biir xool prison bi hmm. si prison yëpp moom moom bi muy wax action boobu noonu loolu am na loo xam ne Koutal la Koutal moo nekk le prison de Kaolack hmm. Koutal dafa am benn euh, dañoo changé benn dafa nu fa joree changé ñu fal benn président bu bees ba mu ñëw Koutal war di def visite benn prisonnier moo génn wax la fa nekk maanaam boo bëggee xam lu nekk 100 ñoom dañuy jël nit ni ku leen neex ñu parfum ko habillé ko kooku ñooy wax mais boo bëggee xam dëgg-dëgg réalité yi nekk ba 100 mètres da ngay jël xoolal ay prisonniers yoo xam ñu ngi tëdd si biir kaso yi. pas ngi nekk ay ci néeguñ mool yi nekk ci rang-rang yi ñoo daj ñoo xam prison xam nga yii yëpp wax nga ko fi waxaat ko mais tey nga xam ne dañuy toog dañuy toog ay vingt jours dugg si douche bi ñooñu ngay laaj nga nga douche am naa quinze jours man doomu bi man quinze jours ah. te loolu ndekete te commencement la rek. bon léegi message bi nga bëgg mu leer Mohamed lan la parce que waxtu bi def message bi may ñaan yàlla mu leer mooy Macky mënul dem sans candidat lii na ko Sénégal yëpp xam. Macky Macky mënul dem élection xool présidentielle sans candidat. loolu amul loolu amul fenn. am na yeneen candidat yu nar a jonganteeg moom. loolu mais dama lay expliquer li nga xam te ne dama bëgg Sénégalais opposants yi si bopp ñoom noonu am fulla am fayde hmm. man de sama loxo man taal naa taal naa sama loxo man képp koo xam ne kon opposant nga pour nu joob jëlee fi système bi fi nekk parce que noota fi am. yow Macky Sall mu jóge fi daal. kumba am ndey ak kumba amul ndey gis nga Sénégalais bu ñu dox tool bu ma ci am deuxième mandat si la ñuy comprendre. Hmm. lii maa ko conseillé képp kuy Sénégalais ba pare léegi. dañu jël benn stratégie boo xam te ni ñi nga xam ne ñoom ñi nga xool ay whatsapp nañu sóoraale si whatsapp bi léegi ñu ngi dugg si espion sàcc parce que mënuñu am ñoom mënuñu am leneen lu dul sàcc. pouvoir bi fi nekk moom mun am. mun am non fi am sàcc. mais Ablaye Wade fii la fi moom man. dama Ablaye lan la ko fi waxoon keneen ak keneen lan la ko fi waxoon. ah non moom mais dafa am quoi am nga tamit moo met. Euh, non politiciens yi seen bopp ñoo jubul. Tounkara yow politiciens yi bul jël ñëpp politiciens yi jubunu mburu foofu que fëriñ je te la vérité politiciens yi. mais am ñu man lan moo ma mais ma posé la question. Hmm. te yàlla moo tax quoi. maanaam li ñu wax li li ñu wax euh, la moo tax te politiciens ñoom ñoom ñu mën fen man affaire boobu dafa ma jaaxal. may poser question boobu rek am na ñeneen ñu ne feneen di wax ma àggale may poser bi même émission bi sax bu jàllee YouTube wala fu mu mën a jàll ma poser la question bi lan moo tax politiciens yi ñu mën fen man question bu laa bëgg xam. na nag envoyé ci foofu si YouTube bi mën naa ko xool. Ah, waaw léegi euh, xaaral tuuti Mass Gueye wax euh, message am. <clears throat> Euh, dama la bëggoon xamal nii la dama bind benn téere. ban la mu ngi nii. téere bi mu ngi tudd la performance sportive nan ngay def ba daal mën a am ay résultat yu baax. voilà c'est que xam nga lu ma constaté. mooy xale yi ñoo ngi dee si EPS. Hmm. xale yu bëri dee nañu kenn deful réaction. dégg nga fi ñu ni am na ku demoon équipe nationale ci jigéen ñi seen biir yi di daw. Hmm. waaw fële au Mali. kenn réagirul donc éducation physique bi ñu def actuellement du bi ñu bi ñu parce que mooy li ma la wax depuis temps antiquité grecque la woon donc éducation bi soo koy def da ngay transférer les acquis au niveau du sport amul te xale yi aussi ñoo ngi dugg si nawetaan yi c'est une débauche d'énergie tu as deux mois ou trois mois de vacances da nga am leneen loo war a def loolu di nawetaan école ubbi ñu ñëwaat donc soo gisee xale yi di dee ils ont des ils traînent des séquelles des problèmes cardiaques ah oui ils ont des problèmes cardiaques loolu nag moo tax ma defal livre bi pour les enseignants pour tout le monde yi nga xam ni ils bi am na solo aussi euh, professeurs yi jàngale EPS. léeg-léeg ñu am téere bu ñuy jàngale xale yi. donc euh, lii moom euh, Mass Gueye lu am solo la def moom mooy bind téere boo xam ne dañ ko mën a jëfandikoo si wàllum éducation physique et sportive téere bi ku ko soxla fan la ko mën a amee. bon dafa gumu kii bi éditeur bi. éditeur éditeur ko li mu doon ni maquette la rek daal. maquette la waaw ci la ci la nekk daal waaw aywa yàlla na ko suñu borom sottal aywa Mohamed yow lan ngay jeexale waaw li may jeex Sénégal bu nu nelaw waaye bientôt nag indi booba ngi dem élection ñu ngi jël nag topp ci temps bi di may seen xaalis di sàkkatoo nit ñi jël di di may ay mënu bu di jeex mënu bu di may suñu xaalis la ku leen may lekk leen man loolu laa bëgg quoi ku toog ci plateau nga wax loo xam ne ni sénégalais foo laal day metti réew mi daa mat yi y a dëkk bi doxul te dara xeeñu fi problème moo fi am kirim léegi booy fi gën bëri temps bi dafa yàqu fu ñu demee la bu yenn góor ñi sax ñu gën a neex yenn jigéen ñi nga xam ni xamul ba adduna nekk léegi léegi góor ñi maanaam dañuy ay góor ñoo xam dañuy xeetal à cause de dama lay wax les femmes à cause mbalax maan yi loolu ay góor yoo xam dañuy xeesal xam nga sax ma luy xeesal waaw ay piqûre di ko def seen yaram yi pour xolleeku di jël seen tuñ yi di ko raboote xam nga luy raboote di ko xoos di xolleeku ndax ñi benn gel nob la yor benn kóolu karsami te yow sa néegu maam ngay fanaan yooyu amul sens ko waaw léegi sa message lan la oui sa message mooy daal sénégalais bu nu nelaw et puis may nuyu tamit may nuyu waa Kaffrine bi sama gars yi. waa Kaffrine euh, bi donc message di nuyu suñu président bi tamit. ya sant Ndiaye. di nuyu aussi tamit suñu maire Bamba faal vraiment maa ngi koy léegi léegi dañuy bàyyi maa ngi koy nuyu di nuyu tamit grand Cheikh Seck. waaw su ko defee après nga jox ñu benn nga jeexale en son parce que yow rappeur nga tamit. waaw euh, euh, xam nga léegi dama la wax euh, affaire éditeur. waaw sama jarbaat bii nag. waaw ñu wax El Hadj bëgg naa mu yëngatu trop si si mbir mi. El Hadj Diouf waaw El Hadj aywa El Hadj dina ko dégg. aywa yow jeexalal en son yow. yes yes yes yes dëkk bi daal mu ngi nii yes maa ngi ziar bépp sénégalais di ziar képp kuy fi toog ci plateau bi di ziar képp kuy tunkare bi ñu teg benn mouvement bu tudd Kaffrine bi ri rue cinq angle 6 fii ki ka géré mooy président Yassane Ndiaye dëkk mi dina rue cinq angle 6 dëkk bi daa mak kii foolal day metti ñu ngi lay bëggee suñu maire Bamba Fall sagal nga maire Medina di la bëggee di bëggee grand Cheikh Seck di la bëggee par rapport télé yi sàkk tàqatoo sénégalais ak askan bi dëkk bi daa metti dëkk bi daa ndóol cóol senegal tar jëkk jaay doole kumba am nday kumba amul ndaay ndax cin bu naree neex su bëxee dafay xeeñ fas lekk mboq gétt gaa ngi xeeñ fas bu lekkee mboq day dem fa sa des te bu demee fa sa des day wàcc la sa des te bu ñëwee gétt gi day xeeñ ten thousand maata la from laaxira rang bum kunkañ bon ay les kararankung yooyu moom dama koy tere léegi plateau ay yooyu daa mais solo def naa ñaari clip jox naa ko Pape Sidi Pape Sidi après bi ah. yaa yaa Pape Sidi waaw dama lay wax envoyé naa la message sax dama tund Pape Sidi <laughs> yooyu dañ see sonn te vraiment gis nañ ni amul benn njariñ euh, mhm. tojul fenn mhm. gis ñu ko mu mu def fenn prestation feesalu grand théâtre moom mi ngi toog keroog jàpp nañ ko muy tox yaa mbaa ñu tëj ko 15 jours euh, bi quand même non yàgg bi moom ku koy def sa bopp bi dina dina fett di nga am sa nopp yi gën a gudd si seen bi am na si dëkk bi ma gis nii nii wax ma la sax tox mais di nga gis leneen lu dul tox si dëkk bi waaw mais tox bi moom dañ koy bàyyi euh, léegi dama bëgg nga lancé xale yi tox yëpp benn message waaw li ma leen lancé mooy li mooy nit ki ak loo mu def si àdduna na nga sa bopp sóoraale sa bopp en tout cas xam fi lu fa am 100 mètres rëbës tux bi laa wax de doon lancer ma message tux bi laa lay wax nii de ndax boo tëxee bu la policier jàppee da da ngay fay xaalis est-ce que est-ce que il bi liggéey ci loolu yéen a xoolal te corrompir yi dañuy jàpp benn dealer mu fay ay 700000 1 million mais ana mu ni boobu nan teg ay sart quoi ku am ku ñu jàppee benn juin temps ngay fay police ñàkk ñëpp avancé ñu xam li ngay def. non non bu boobaa mais dañuy jàpp benn gars mu tux benn gin mu fay ñaata ay 400000. ndax bëggul mu kalaatee. yow yow bi la ñaata nga fay man te wax man. 50 hmm. mille wax boog nga fay ko. ma ne ko ma leen su ma naree fay 50 pour ma dem tëdd ko. pour ñaata juin benn nit un mois la te ku nekk te 15 jours ngay tëdd. non non mais mais ten benn dagg loolu gëmuma ko. ay juin la jàppee ay kepa ay kepa lañ la jàppee benn paquet benn paquet. Eh. lan ma jàppee barke alxuraanu karim man man jënduma ko moom ma dama ko sëfoo man parce que dama fekk ay nit ma libéré ñooñu ñooy fii jàpp nañ fi dileel ba sonn bu fay ay biir naa na xaalis boobu léegi waaw léegi di noot nii jël nit di rey jël nit di sàkk waaw loolu yëpp dëgg la ma ñoom dëkkuñu Sénégal ñoom lan la magi wax la tamit tux bi nga war a bàyyi rek ah, boo boo bàyyi tux rek léegi. si leneen boo bàyyi leneen dem si leneen. <laughs> mais tux bi moom kay wax yàlla aar si boppam léegi non mais mais fi ñëw. fii da ngay indi parce que eh, yenn affaire yi. la fi yow yaa ngi nii toog fi ay xaw ma lan ak lan ay xaw ma kan tey ñaata juin nga tux balaa nga la est ko jox <laughs> li <laughs> ngeen problème <laughs> bu bàyyi tox bon gis nga wuy ma xale bu bàyyi tox bon moo ko mën a kangaraan kum kankaan da ngay doom sax da ngay doom sax benn gànnaa la wéy waa ji rek toxari bon te moom sàcc la moom ëmbal na xale yëpp waaw mais moom kenn jàpp ko yow lañ jàpp waaru ka moo tax moo tax moom lañ jàpp muy tox ko kenn jàpp ko muy sàcc mais tamit maa ngi dimbali tamit ngir problème bàyyi toog Ngaaka Blindé naka état bi dimbali Ngaaka Blindé tamit bu ñu ko euh, mënee libéré nañ ko dimbali non Ngaaka Blindé ni ñu koy libéré foog ñu àtte ko parce que affaire faux bi libéré nañ Thione Seck mu ngi nii waaw mais même la rek ah loolu tam dëgg mais rappeurs yi ñoom ay dëmm la ñu wala ay vingt ans am na waa yeneen <laughs> wax quoi doon dimbali doomu jàmbur tamit problème bi mais tamit <laughs> eh, ah ngaa ka blende li ñu ko jàppee Thione Seck dara jotu ko de dafa teg dil ni dafa feebar fii mu ngi ni dafa ay sponsor maanaam feebar nu la dimbale booy mu ko dimbali yàlla moo tax booy bu ndaw la non non non non saa doomu jàmbur ñëpp lay dal dëgg la euh, léegi léegi tamit euh, affaire faux billets yooyu ñëpp ko war bàyyi ten thousand bàyyi na toog tux wax na ko tey la mujje to juin yi nga mujjee tux tey moom jeex na bis ni ki tey dootoo tux waxal. ba léegi yow yaa ngi bëgg a dugal ba léegi wax ma loolu la. te loolu njukkal diwil problème ak sunu sunu gan yëpp tey euh, sunu ay euh, technicien ñoom ñëpp autour de El Hadj Bakay